Euh, moom mooy euh, jafe-jafe yu neex wala jafe-jafe yu naqari vous avez euh, fii ñu nekk nii moom mooy quartier bi nga xamante ni benn la ci quartier bu nekk fii ci Mbour plus de huit personnes yoo xamante ni dañoo génn àdduna ndeysaan ci gaal gi donc fii la ñu dëkk fii lañu ñu soqeekoo moom Bougane ba mu jugee Ndakaaru automatiquement fii la agsi daal di daal di daal di ñëw ci ñi nga xamante ni. Euh, moom mooy euh, ci yi. waaw. def sax waaw maa ngi fi waaw xaaral ñu waaw. waaw sama rak ah ñu ngi rafetlu xaar ba ñu waxtaan ba pare ba pare xaaral ma waxtaan ak ñu ba pare waaw parce que lii moom dañ koy rafetlu rek. parce que nga am euh, métit ay kilifa déplacé wu ñëw set si leen loolu rafet rek la man yàlla dogal dama fii maa fii kilifa kër gi voilà jigéen yëpp dañoo topp sama ginnaaw suñuy jarbaat nañu ak suñuy doom lii nag lu gën la natt bi nga xam ne yàlla dañu koo teg dañ koy sante yàlla ok ñu ñu ñu ñu euh, xaarandi un peu Euh, réaction président bu euh, Bougane bu jógee fii dem foofu nga xamante ni moom mooy ca euh, tefes pour jébbal li nga xamante ni moom mooy njaalam def déclaration bu am solo bi nga xamante ni yaakaar naa ni moom bu Bougane ngay Dany chaque fois jege ñi nga xamante ni moom mooy askanam ci li nga xamante ni moom mooy situation yu mel nii moo xam naqar la wala bànneex waaye kat gis ngeen noonu. li nga xamante ni moom la président Bougane dégg ko nee na mi ngi mastaw bu baax a baax a baax nee na mi ngi bu baax baax baax nee na ngi mastaw bu baax a baax a baax aywa mi ngi noonu moom président Bougane Gueye Dany di def foofu ca tefes Euh, pour daal di euh, joxe njaalam ci li nga xamante ni moom mooy li xew tey ci réew mi gis ngeen noonu euh, muy saafonteeg ñi nga xamante ni moom mooy askan bi gis ngeen noonu ah ah, ah mu mi ngi noonu ñu ngi ñu ngi dem tefes donc donc donc donc ñu ngi ñu ngi dem tefes ñu ngi dem tefes ñu ngi dem euh, tefes daal di euh, fekk fa président Bougane ci li nga xamante ni euh, moom la moom la fas yéene moom la fas yéene def tey daal di jaalewaat ñi nga xamante ni moom mooy ñi nga xamante ni donc mi ngi noonu ñu ñu ñu ñu xaaral ngi rek un peu bi ñu ànd ak li nga xamante ni moom mooy convoi bi daal di dem foofu nga xamante ni moom mooy ca Tafes pour ànd ak ñi nga xamante ni moom mooy aywa mi ngi noonu je crois que ñi ngi ñi ngi ñi ngi euh, ñi ngi avancé waat daal di dem foofu nga xamante ni moom mooy ca euh, fële nga xamante ne moom mooy ca tafes ginnaaw ba ñu jógee fi nga xamante ne moom mooy ci académiquia daal di euh, dajanteeg ki nga xamante ni moom mooy le président Bougane Gueye Dany ni muy génnee fii la dajanteeg ki nga xamante ni moom mooy cortège yu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye donc mbokk yi mu mel ni que ñaari cortège yi ñoo dajaloo tey muy cortège yu président Bougane ak ki nga xamante ni mooy mooy le cortège bu président bassiru Diomaye Diakhar Faye donc mu ngi noonu yaakaar naa ni euh, ñoo ko euh, gisandoo askan baa noonu oto yaa ngi noonu daal di jiitlante kii di euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom mooy dugg si léegi-léegi may kat mu dajek cortège bi nga xamante ni moom mooy cortège yu Bougane Gueye eh, Dany loolu loo xamante ni yaakaar naa ni euh, ñëpp ñu ngi koy euh, bàyyi xel mais gis donc mu ngi noonu en tout cas gis ngeen euh, président Bougane ci li mu def daal di ñëw fii nga xamante ni moom mooy ci ci Mbour daal di ànd ak ñi nga xamante ni moom mooy mbokk yeeg ñi nga xamante ni ñoo ñàkk seen ay doom gis ngeen convoi bu am solo boobu nga xamante ni le leader de euh, Gëm Sa Bopp euh, président euh, président Bassirou Diomaye Faye ñaari convois yi ñoo fa nar a tase Bougane romb na Diomaye romb na doon loo xamante ni yaakaar naa ni tey lépp dinañ ko mën a am fii ci Feeling Dakar TV la première chaîne pour cent politique et people bu Sénégal lu inédit tey moo fi nar a am ginnaaw ba président Diomaye rombe kii di Bougane aussi romb na daal di dem foofu nga xamante ni moom ca euh, tefes pour daay daal xool yi li nga xamante ni moom mooy euh, ñu génn seen euh, addu ñi génn àdduna ci li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe yi métti yi nga xamante ni actuellement réewu Sénégal mi ngi koy dund tey Mbour nekk capitale bi nga xamante ni daanaka l'information tey fii la fii la fii la accenté wu li nga xamante ni moom mooy information bi tey euh, fii la accentué wu ci li nga xamante ci li nga ci li nga xamante ni moom mooy euh, li xew depuis ce matin léegi ginnaaw dimanche euh, ba ñu gisee ñi nga xamante ni moom mooy accident bi nga xamante ni ci géej gi suñu ay su suñu ay li nga xamante ni moom ay rakk ay frère daal di génn àdduna ci li nga xamante ni moom mooy ci ndox mi ginnaaw ba ñu euh, sa gisee lu met loolu nga xamante ni am na tey euh, opposition muy pouvoir ñëpp ñëw daal di jaale si euh, ginnaaw ba ñu gisee ki nga xamante ni moom mooy cortège yu Bassirou Diomaye Diakhar fay romb ñu gis léegi lii di cortège yu président Bougane Gueye Dany leaderu gëm sa bopp mu doon loo xamante ni yaakaar naa ni lu ama am solo la gis ngeen noonu li nga xamante ni waaw pour fàttali nag euh, Daouda euh, bu leen fàttali benn yoon ko ni Bougane jamono ji dafa dagg li nga xamante ne rek moom mooy njaal bu mu doon amoon si quartier euh, Thiocé fa nga xamante ne rek famille lu mot xanaa juróom-ñaari kër ñoom ñoo si daal di ñàkk seen i doom maanaam ko ñu lëmm la ay jeunes daal di bàbbeekoon doon jël mbëkk mi daal di si ñàkk seen bakkan mu mel ni ne rek tey. Bougane dafa daal di dagg li nga xamante ne rek moom mooy njaalam ngir dem fa nga xamante ne mooy tefes ba euh, ngir rek daal di euh, fas yéene def foofu li nga xamante ne moom mooy ab déclaration bu am solo jëmale ko si waa Mbour masawu leen waaye it euh, jëmale ko si li nga xamante ne rek moom mooy askanub Sénégal ak la jeunesse sénégalaise Daouda li tax nag mu dagg lu ni mel day bañ rek. Euh, euh, ki nga xamante ni mooy le président Bassirou Diomaye Diakhar fay daal di koy jiitu foofu ndax nag nee naa la ci politique euh, lañ nekk même événement yi même bu dee nakar la sax da politique de si daal di rek lalo c'est malheureux mais nag Sénégal moo tëddee noonu mënuñu si dara avec nos hommes politiques donc nag Diomaye ak ki nga xamante ne moom mooy Bougane Gueye Dany il est fort probable que ñoom ñaar ñu tase fa waaye ki nga xamante ne mooy le PM Ousmane Sonko moom itamit mu ngi en route actuellement ngir rek daal di ñëw si euh, famille yi nga xamante ñoom ñooy euh, euh, victimes yi daal di fas yéene rek jébbal li nga xamante ne moom mooy njaalam comme ni kii nga xamante ne rek moom mooy nit la en même temps tamit dafa bokk njiit si réew mi waaye dañoo uuf donc métit bi bu dalee suñu kaw yaakaar naa ne da ciy baax képp ki nga xamante ne rek porteur de voix nga nga daal di jóg massawu leen ndax nee naa la góom bu méttee boo ne ëf sax euh, xol day sedd même bu fekkee du ko faj mais au moins dina sax am nu mu def sa xol ba tax na sax yow di nga mën a amaat un peu de suuful amaat espoir ci sa dund ndax tey bu ñu gisee benn famille boo xamante ne daanaka. dafa ñàkk li nga xamante ne mooy euh, lu mat juróomi euh, euh, ndawam day xaw a doy waar ndax nag nga jur sa doom ñu mat juróom ñoom ñëpp daal di rek ñàkk seen bakkan ngom nag li ngay dawal macha allah ñàkk seen bakkan day xaw a compliqué dafa mel ni que Bougane dafa teggi yoon bi Bougane jaar bu bu bu Diomaye jaar moom dafa teggi dugg ci koñ yi pour mën a continuer li nga xam parce que dafa àndal ñi nga xamante ne ñooy waa koñ bi waa koñ bi ñoo xam dañoo miin fii Mbour ñoom la ànd dañoo teggi bu ki nga xamante ne rek moom mooy

Euh, Bassirou Diomaye Diakhar fay dafa def tout droit moom route nationale bi daal daal di jël mais euh, moo tax ma ne il est fort probable que ñoom ñaar ñu daal di fay mbëkkante ndax euh, boo gisee si staff yi nga xamante ne ñoom ñoo bëggaan ñu ngi naan nañ gaaw dem balaa rek mu ñu fa njëkk ñu def lu ñuy def juge fa bu ñu paree dañuy delluwaat fi nga xamante ne moom mooy coose fas yéene parce que quartier bi noonu la tudd fas yéene rek daal di jébbal njaalam bu ko defee rek ñu xool parce que comme tàmbali na mënul def dem si ñi bàyyi si wu ñëpp je pense que loolu la ñun nag ñu ngi topp convoi bi fas yéenee dem sa tefes ga foofu lañ nekkoon voilà sapeur pompier mu ngi fa ba ñuy ñëw nag fi nga xamante ne moom mooy si famille victime yi ñu ngi gisoon police euh, daal di euh, ñëw en masse ngir rek daal di le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ginnaaw ba mu jógee fa la nga xamante ni euh, moom mooy Kaolack nangaan ngir waajal li nga xamante ne moom mooy gàmmu si dimanche bi en tout cas comme niñ ko gisee nii ñun daal ñu ngi si yoon bi je pense que di d'ici euh, euh, cinq minutes nañ daal di egg fa nga xamante ne rek euh, moom mooy fii di tefes ga ngir rek ñu daal di jël discours Bassirou Diomaye Diakhar fay waaye jëlaale ki nga xamante ne mooy discours kii di rek Bougane Gueye Dany donc nag on fera notre mieux ngir que ñaari discours yëpp bañ ñoo daal di raw fi nga xamante ne rek moom mooy fii si mbuur voilà donc ñu ngi nii di enchaîner di dem donc euh, mbir mi nañ ko bañ a dugal ci cadre politique xam ni euh, daanaka euh, naqar la ak tiis donc mu doon mu doon loo xamante ni je crois que même sax ñaari cortège bu ñu fa bu ñu fa dajantee du contexte politique ndax fi mu toll nii réew mi toll na foo xamante nii yu mel ni naqar ak tiis boo amee doo xamee homme politique bi doo xamee ki xamante ni moom moo nekk ci politique certes que ñoom ñaata tey ñoo fa a dajante mais nañ ko jël lépp def ko ci cadre njaal parce que dëj bi fu bi yaakaar naa yëpp la metti muy homme politique muy koo xam tamit nekkoo ci politique. bu ñu demee ba décréter deuil national ñëpp xam nañ ne euh, Daouda euh, euh, métti na et képp ku ci doon ak fépp foo mënti fare di nga daal di rek def sa wàll ndax doomu réew mi nga et que ñooñu tey ñàkk seen bakkan sa doom la mais analise rek lañuy def. ak situation bi nga xamante ne moom lañ fi gis waxuñ ne loolu moo am exactement mais man personnellement da situation laa def euh, expliquer leen li nga xamante ne moom lañ fi nemmeeku ak li nga xamante ne moom moo moom lañ fi gis donc situation la waxuñ ne loolu moo nekk seen xel yi wala loolu la moom la ñu mëbët mais situation la mën na am mënul am lu nekk la wala lu nekkul lu si mënti donc ku si nekk daal def nga sa wareef en tant que leader. en tout cas euh, wax ma daal sax mais ñoom sax. boo xoolee ci cortège yu euh, président Bougane bi ak euh, délégation bi sànq avant ñu départ yaa ngi dégg seen ay biir ñoom ñu naan nan nañ gaaw gaaw balaa euh, cortège président di ñu di ñu jiitu donc ñoom seen biir sax ñoo njëkk a instauré wàllu politique waaye ñun tamit en tant que journaliste tamit li ñu gis dong dañu mën a commenté mais daal comme lañu wax na ko daal nañ ko nañ ko nañ ko waaw nan ko nan ko nan ko jëmale ci wàllum dëj comme dëj la aussi xol neexul. réew mi je crois que fi mu toll nii ñëpp ñu ngi naqarlu li xew naam sax suñu borom moom moom moom mooy dogal waaye euh, protocole tamit surtout pour kii protocole yu njiitu réew euh, bu xasee bu dugg beneen du dugg mais daal ñi ngi xaar daal ci kanam bu ñu yeggee euh, daañu xam ak force de l'ordre nan la ñuy defee ba ñaari kilifa yi mën a jox joxe seen jaal mën a xool li nga xamante moom mooy li li xew depuis dimanche ak léegi pour que xam exactement qu'est-ce qui s'est réellement passé ma d'accord mu mel ni fi nga xamante ne moom mooy si tefes gi ginnaaw bañ jëlee raccourci jëluñu li nga xamante ne mooy route nationale bi raccourci bi lañ daal di jël donc nag euh, dañuy daal di wàcc nànk rek dem fa nga xamante ni euh, moom mooy si euh, voilà fa lañ jógee fa lañ nekk suñu équipe fa lañ nekkoon ñun ñëpp donc dañuy wàcc foofu rek fas yéene xool ana naka Euh, la ñuy euh, xoolee ba xam ñoom ñaar dañu fay tase wala euh, nan lay demee wala li su doon daal fii Sénégal la te yaakaar naa ne bu nakar amee ñu ñëpp dañu koy bokk et que dañuy masaw bu baax a baax a baax surtout famille yi waaye ki nga xamante ne ñàkk na si huit si ay mbokkam mu nekk loo xamante ne aussi métti na lool maanaam daal famille bi ñoom ñëpp seen i ndaw daal dinañoon jël mbëkk bi ndax lan lépp rek euh, si cadre euh, euh, tekki si cadre bëgg dimbali yaay papa bàjjan nijaay ndax ñëpp xam nañ ne la famille sénégalaise dafa daal di yaatu ñu élargir ko ba nga xamante ne ñëpp dañ siy bëgg xaj ñëpp tamit ak dërëm boo bëgg am rek da ngay fas yéene bëgg jàpp phénomène bi li nga xamante ne ñoom ñooy suñu autorité dañ ca war a jóg ndax bu ñu fàttalikoo si campagne présidentielle yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi régime bu yees bi waxoon nañ si lu ñu mel nee nañ kat bu ñu ñëwee dinañ teg ay jéego ba def lépp lu war si jeunesse bi ba tax dootuñu euh, amati sax li nga xamante ne moom mooy xalaatu ngir jël mbëkk mi bu ñu waree tukki sax dinañ fexe ba euh, jël li nga xamante ne rek mooy la voie normale je pense que loolu tey ñoom bu ko defee rek euh, def nañ lépp li nga xamante ne moom moo war si rek Sénégal ndax bu yaakaar naa ne ndaw yi saa su nekk dañuy dem ay gaal di suux mais du tee n'empêche ñoom dañuy gën a rek euh, enfoncé wu ñeneen ñi di dem loolu du leen ragaloo en tout cas métti na waaye jàpp nañ ni rek buñ ci daal di ju utee ay solution ñoom euh, euh, njiitu réew mi ak ñi mu àndal ci liggéey bi dina fexe rek mbir yi wàññeeku bu baax a baax a baax ndax nag dindi ko fi dina jafe mais wàññi ko it ba mu baax dina tax ñeneen ñi tamit ñoom it ñu bàyyi si xel bu baax a baax bañ a dem ndax Barça wala Barça yaakaar naa ne kenn bëggut lu ni mel euh, mais Daouda Wally est-ce que duñu jéem a wàcc bu fekkente ne soriwuñu noonu ñu jéem a dox xool pour gagner un peu de temps pour daal di rek def li nga xamante ne moom moo war si euh, liggéey bi. Euh, waaw mel ni dañuy waaj parce que voilà donc mu mel ni rek dañuy euh, arrière fas yéene rek dem ndax agsi nañ presque on est aux alentours euh, si quai de pêche bi nga xamante ne rek euh, foofu la. sapeur pompier rek daal di nekk. Mhm. cortège président Diomaye moom moo nekk fële moo tax xam naa ñi moom ñoo am accès mais euh, lu ci mënti lu ci mënti am daal nañu nañu nañu xaar nga rek un peu rek euh, ñu mën a am accès d'abord fii nga xamante ni euh, moom mooy ci ci ci ci géej gi d'abord ci li nga xamante ni moom moom mooy xam. ñu wàcc dox. mën mu ngi noonu kon naka nañ daal di euh, wàcc dugg euh, fas yéene rek jàkkaarloo ñi nga xamante ni euh, ñoom ñooy kii donc voilà. léegi ma génn ah. ñoom ñoom fii la ñu war a arrière bi génn. da ngay arrière noonu yaakaar yaakaar naa ni euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi avancé waat un peu pour dem foofu nga xamante moom mooy ca euh, tefes ga président ba Bassirou Diomaye jaaxal Faye moom moo fa nekk gum en tout cas actuellement ñu ngi ñu ngi ñu ngi euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi dem pour daal di jël quelque réactions yi nga xamante ni je moom moo fi moom moo fa moom moo fa moom moo fa nekk Eh, eh, aywa ñu ñu ñu ñu ñu avancé dem fi nga xamante ni fa la euh, fa gaal gi daal di daal di wàccoon euh, démb ñu gis fa ñu gis fa ay quelques ñi nga xamante ni euh, moom mooy ñu ñu ñu ñu dellu daal di daal di amaat uh, fu ñu mën a jaar fu ñu fu ñu mën a jaar pour dem foofu nga xamante ni uh, fa la uh, mbir mi nekk. ñu ñu avancer un peu ci li nga xamante ni pour fekki li nga xamante ni moom mooy d'abord président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci li nga xamante ni moom mooy son discours actuellement nag. donc yaakaar naa ni euh, euh, euh, mi ngi noonu ñu xaarandi un ci li nga xamante ni moom mooy ñi nga xamante ni moom mooy gis ngeen noonu cortège du président Bougane moom mooy jàll noonu ñu xaarandi un ci li nga xamante ni jàppale nga xamante ni euh, moom mooy euh, cortège président Bassirou euh, Diomaye daal di nekk ñu ñu. waaw ma mi ngi noonu yaakaar naa ni mi ngi noonu ñu ngi koy ñu ngi dellu fale nga xamante ni. Euh, fala la euh, cortège yu président euh, Bassirou Diomaye fay nekk ñu dem xoolee li nga xamante ni ah, moom mooy d'abord discours bi en tout cas en tout cas actuellement dafa mel ni que oto bi oto bi taxaw na ñu xaarandi un rek ci li nga xamante ni moom mooy bile bile cortège yaakaar naa ni ci kanam tuuti léegi ñu. daal di euh, gis li nga xamante ni moom mooy euh, cortège président Bassirou Diomaye ci fi nga xamante ni moom mooy ca euh, tefes ga fa nga xamante ni démb fa la ñu daal di gisee ñi nga xamante ni moom mooy corps yu njëkk ci ñi nga xamante ni moom moom la gis ci li nga xamante ni moom mooy ñi génn àdduna depuis dimanche ba léegi mu woon ay xale ñoo xamante ni je crois que dañoo génn àdduna ci li nga xamante ni euh, moom moo fi euh, moom moo fi euh, moom moo fi nekk ay xale yoo xamante ni yaakaar naa ni ñàkk seen bakkan ci li nga xamante ni moom mooy depuis dimanche daal yi génn àdduna ci fii nga xamante ni moom mooy ci réew mi doon lu méttee métti loo xamante ni ñëpp ñu ngi koy naqarlu donc ñu xaarandi un peu rek ah dans un moment tàllatul ci li nga xamante ni moom mooy. Euh, bi les euh, pour ñu mën a am exactement li nga xamante ni euh, moom mooy quelques réactions yoo xamante ni ci kanam tuuti ñu mën ko am ci fii nga xamante ni moom mooy ci Mbour ginnaaw ba ñu ñëwee daal di jël si yenn ci yi nga xamante ni moom mooy yenn réaction donc mi ngi noonu mbokk yi ngi ñu ngi ñu ngi ba léegi. ñi ngi ñi ngi euh, ñi ngi ñi ngi ñi ngi ànd euh, ñi nga xamante ni euh, moom mooy yile yile yile yile cortège donc ñi ngi ñi ngi daal di topp ba léegi li nga xamante ne moom mooy bile cortège en tout cas en tout cas doy na waar donc ñu ñu daal di daal dem di nga xamante ni fekkee ñi nga xamante ni je que moom mooy cortège du président Bougane d'abord Euh, président Bassirou Diomaye d' abord am li nga xamante ni moom mooy sa réaction d' avant que euh, moom Bougane daal di ñëw daal di euh, wax ci li nga xamante ni moom mooy li nga xamante ni moom mooy li nga xamante ni moom mooy li ci ne actuellement nag oto yi moom la ñu baande amuñu accès pour jàll fii nga xamante ni yaakaar naa ni moom mooy ci li nga xamante ni moom mooy ci yoon bi. aywa aywa aywa ñu waaw eh, ba tey ah ñu ñu ñu ñu ànd ak